ok alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ngi sant suñu boroom subhanahu wa taala ci wërsëg wim ñu dëppaleel ci biir chahru ramadan ñu ñëw fii ci ab néegam di fas yéene jàng ab téeréem téere boobu nga xam ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lam ñu ca bégalee bokk na li julit di gën a yaakaar ci jëfam te mooy ñi bàyyi seeni kër dem ci néegu yàlla ba di jàng téere bi yàlla bi suñu borom dana leen jagleel ñeenti mbir bi jëkk dana wàcc ci ñoom ak dal yiir leen ak yërmandeem sant ay malaakaam ñu ñëw wër leen mu leen di tudd ca malaaka ya ne fa moom yal na yàlla subhanahu wa taala jagleel ñu ko mbooleem ñi nga xam ne nii it ñoom ñooy nar a déglu waxtaan yi ak fu ñu mën a nekk ñu ngi ñaan suñu boroom boole leen ci ñi nga xam ne seen xol day aju ca jàkka ya jàkka jooju nga xam ni ca la ñu teqali ko woon démb ba yegg si tey ci ay fanweer beeg juróom-ñaar incha allah ñu bàyyi Cheikh Ousmane
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور بارك الله فيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم suñu boroom subhanahu wa taala mu ne rijalun la tulhihim tijaara ay góor yoo xam ni du leen itteel mukk lii nga xam ne mooy jëflante ci wàllu commerce bu mu mën a doon wala bay bay moom mooy la nga xam ne da nga koy jël di jaay bay iw ci tijaara lay lay lay dugg an zikrillah ci ñuy fàttaliku yàlla wa iqaami salaa ak di taxawal julli wa itaa zaka ak di joxe azaka yaxaafuuna yawma ñi ngi ragal bis boo xam ni tataqallabu fihi alqulubu wal absaar dana wëlbatiku la nga xam ni mooy xol ya ak la nga xam ni moom mooy gis ya li yajziyahum allahu ahsana ma amilu ngiree yàlla fay leen la gën ca la nga xam ni moom lañ doon def wa yazidahum min fadli dolli leen ci ay ngëneelam wallahu yarzuqu man yasha yàlla nag mooy wërsëgal ku mu soob bi xeyri xisaab ci loo xam ni du ànd ak benn lim bu ñuy réglé walazina kafaru amaluhum su dee yéefir yi nag moom seeni jëf ka sarabin bi qia mi ngi mel ni sarab sarab mooy mirage mooy yow mi tàmm tukki boo demee côté une heure deux heures à un kilomètre day mel ne ndox moo nekk ci tali bi soo dawee ba yegg si nag fekk du dara muy ay mirmir yaxsabuhu yaxsabuhu zamaanu maa dana ko jort waa ji mar li lii muy seen kan ndox la hatta ida jaa ba baa mu koy dikkal lam yajidhu shay'a mu fekk ne ndekete du dara wa wajada allaha inda waaye nag mu fekk yàlla foofee fa waffaahu xisaaba ba matalal ko la nga xam ni mooy payam ay régleem wallahu sari'ul xisaab yàlla ko gaaw la ci nu muy réglé ay jaamam aw ko zulumaatin fi bahrin lujjiin wala boog ay lëndëm yu nekk ci géej gu xóot yaxshaahu mawj mu muur ko benn duusi géej min fawqihi mawj ca kawam beneen duusi géej min fawqihi sahab ca kawam la nga xam ne muy ay niir nekk fa zulumaatum ba'duha fawqa ba'd ay lëndëm yoo xam ne lenn la ma nga ca kaw la ca des ida axraja yada su demee ba génne woon ab ab ab ab loxom sax lam yakad yaraha du xaw di mën a gis loxo bi wa man lam yaj'al illahu lahu nuura koo xam ne nag yàlla defalu ko ak leer fama lahu min nuur kookee du mën a am fenn leer yàlla na yàlla defal ñu leer àdduna ak alaxira mbokk démb démb bi ñu fi jógee suñu boroom mi ngi doon tagg ab néegam mooy jàkk yi nga xam ne moo joxe ndigal ci ne nañ ko tabax moo am loo gën a yaakaar dërëm ba nga dugal ca tabax néegub yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ki tabaxal néegub yàlla même bu doon dafa mel ni taggu patax sax yàlla dana ko tabaxal kër ci aljanna ca yàlla subhanahu wa taala moo ñu digal ak taawun loolu it ñu jàpp ne bépp dërëm boo def ci ñu tabax néegu yàlla insha allah dana la yeeyal kër gu lay xaar ci aljanna borom bi nee ne nañ ko màggal respecté ko kaweel ko soo duggee ci jàkka ji nga wuutale ko boo nekkee ci mbedd mi wuutale ko boo nekkee sa kër nga xam ne yaa ngi dugg ci néegu bi yàlla ñëw fii di sakku la nga xam ne nii mooy yërmande yàlla ak ngërëmal yàlla nga changer sa comportement looli mbokk jàkka jooju it luñ ko mën a terele da ngay xamee ni ci yi gën a am solo la ba tànk yëggul ci ak puukare ak ay décor yoo xam ne dafay itil nit ñi am na jàkk yu bari ba fa jullee pour la première fois da ngay jàpp na ci foor nga nekk te yonent bi alayhi salaam waxoon na ko nee na bala àdduna tukki nit ñi daañ taaral jàkk yi doonte ni duñ ko dundal lu dul lu néew waaye yow ma fa def lay yombal masalan kii di tamimu daari yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa génn benn gée rek gis jàkk ji yépp koñ bu la ñu def fa benn lamp mi ngi noonu jàkk ji leer nañ loolu musul am mu ne waaw ko def li ñu ne ko tamimu daar yi day moom moo demoon fële ci ruum jënd fa façon lamp yi yonent bi alayhi salatu wasalaam woo ko mu ñëw mu ne ko nawwarta al islam nawwaraka allahu fi dunya wal axira da ngay leeral nga lislaam yal na yàlla leeral la àdduna ak alaxira loolee kon ñiy jël seeni dërëm di def ca courant ba di def ca ndox ma ñuy jàppee di def ca tapp yee tax nit ñi nekk à l'aise ak lépp loo xam ne ajuña ca loolee mbokk ngëneel yu rëy la wa ci nañu fi indi ay onduleur rek indi fi ay la nga xam ne nii moom mooy soleil rek loolu lépp mbokk ñu ngi ñaan yal na yàlla fay leen loolu mbokk moo aju ci néeg bi tey nag suñu borom lan lay wax mooy ñen ñooy dunde néeg bi mu ne soo demee da nga fa fekk rijal ay góor na am mbokk arab ak langue yu bari suñu waxee rijal dañ cee yóbbaale ay jigéen waaye nañu xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ni laa tamna'u ima allahi masajid allah jigéen bu jógee ne day dem ca jàkka ja yow borom kër bu ko tere yow borom kër bu ko tere abdullah ibnu omar toog nag njabootam wax leen xadis boobu mu am benn doomam bu mu tudd woon bilal jóg na ko ah bàyyi jigéen ñi ni ñu doye waar man de sama soxna duma ko bàyyi mu dem jàkk arrawi bi doon nettali histoire bi nee na bi ab ibnu omar tëbee ba tëggu ko pes ba ma juddoo ba tey musuma gis pes mu tol noonu mu ne ko yow ma ne qaala rasulullah ba pare nga naan ma man nag bis nekk tey dootuma waxati ak yow gis ngeen bis nekk tey dootuma waxati ak yow loolee kon mi ngi noonu donte ne ne it mayul carte blanche jigéen ñi ñu dem jàkk nu mu leen neexe yaay aïcha radiallahu anha doon na wax ni yonent bi alayhi salaam de bu fekke woon li ma fekke doon na tere jigéen ñi ñuy dem jàkka ja te mooy jigéen ñi yonent bi joxoon digal bu ñuy dem dañuy sol col gu yiw dara du feeñ ci ñoom ci taar dara du feeñ ci ñoom ci parfum yonent bi alayhi salaam ne koo xam ne parfum laal na la wala cuuraay laal na la yéen jigéen ñi bu mu ñëw gee di julleeg ñun loolee kon ñu bàyyi ci xel bu baax borom bi ni ar rijal kon nañ doon góor la am jigéen yoo xam ni lii di tijara muy ah médecin ba informaticien ba waa jay liggéey waa jay liggéeylu loolu lépp day dugg ci tijara amma bayu mooy ki jël marchandise di jaay ñuy jënd lu liggéey bi tartar lu njaay mi tartar du tax mukk mu leen di faat julli ji ca jàkka ja du tax mukk mu leen di faat ñu julli ji ca jàkka ja loolee mbokk di mbir moo xam ni ku ne ci ñun war cee bàyyi xel abdullah ibn masud daana wax jamono bi yonent bi dund ñaar dong nga daawul ñëw jàkk ki feebar ñëpp xam daa feebar naafiq bi ñëpp xam ne naafiq la jeex na ñëw daawul ñëw même ñi feebar daana am ñu ñu daan lënge seen kër ñuy diri seen tànk ba ñëw ci biir jàkka ji kon commerce ak lu mën a doon du tee ñu dem ca jàkka ja mi ngi noonu di def la nga xam ne mooy zikrullah te loolu it ñu bàyyi ci xel ki ñëw ci jàkk ji di def zikrullah wéet ak boroomam moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax bu kenn perturbe moroomam te muy jàngal xuraan yemele ko ci yow li ngay def lu baax la yaa ngi ci néegu yàlla di jàngal xuraan waaye nag am na ñeneen ñi fi nekk imma bëgg a jàng comme yow wala bëgg a nelaw comme yow bàyyil xel loolu bu leen perturbe la ngay def yemele ko ci yow mu bokk li gën a nekk erreur ñëw ci jàkka ji taal sa portable bu ma mbedd ma di dégg ndax ñu nekk ci biir jàkka ji li ngay déglu ñoom intéressé na leen ndax yow yàqaloo leen seeni nelaw ndax yàqaloo leen alxuraan di ñuy jàng loolee ay mbir la yoo xam ne mbokkoo dem jàkk lu baax la waaye xam teggi ni jàkk doog faa dem moo ko gën ñu bàyyi xel ci loolu bu baax kon suñu borom subhanahu wa taala mu ni commerce lu mu neex neex du tee ñuy taxawal julli te mbokk taxawal julli day da ngay gis ni ci li gën a màgg li ñuy def ci kaw suuf ca la bokk yonent bi sallallahu alayhi wasallam bañ ko laajee loolu la wax loolee ñu bàyyi ci xel bu baax lan moo tax bu waxtu julli jotee buñ ñëw hayya ala salaat ca jàkka ja ñu tëj seen magasin muur seeni taabal médecin bi sumi blousam général bi wàcc ca bureau am ñépp ñu daje ci néegub yàlla ba dañoo ragal bis ngi ñëw boo xam ni xol yi dana wëlbatiku bët yi wëlbatiku ngir tiit mbokk loo bàyyiwul ngir julli da nga ko mas a bàyyiwu fekki de am déet ngi noonu commerce bi lu mu dox dox dox dox dox ñàkk bañ a teew ci service bi lu mu ñàkk ñàkk bañ a teew loolu say wax rek la waaye bis bu dee ñëwee nga xam ne yàlla rek a jar a àndal su ko defee kon lum mën a doon dañ ko fay bàyyi ngir ragal àllaaxira ja nga xam ne moom ma leen di xaar waaw ñooñu def loolu luy seen pay ñooñu def loolu luy seen pay nga xam ne fu ñu noddee ñu daal di fekki suñu borom borom bi nee na ñoom day danaa leen fay lu gën lañ doon jëfee mbokk te dolli leen ci samay ngëneel yow mi dugg ci jàkka ji am na azkar yooyu war a def bismillah wa salaatu wa salaam ala rasulillah allahuma ighfir li zunubi waftah li abwaaba rahmatik mi ngi noonu ñaan yàlla booy dugg yàlla ubbil la bunti yërmandeem amma booy génn da nga war a wax bismillah gannaaw ba lan koy tëjee mooy allahuma iftah li abwaaba fadlik aw allahuma inni as'aluka min fadlik heure booy génn jàkk ñaanal yàlla ci ci ay ngëneelam ndax da ngaa bàyyi woon sa mbiri àdduna ngir ñëw màggal sa borom zikr ko temps boobu nga jël ci sa liggéey boo paree ñaanal yàlla ay ngëneelam wallahi yàlla day barkeel sa liggéey yàlla day barkeel sa liggéey benn ndaw ci ndaw yoo xam ne fii la formé woo ci jàkka ji mi ngi Italie daf may wax ngi tudd Moustapha Cissé yàlla na yàlla doolu ñëw dolli ko ko ku mu dendal nii taabal ci Italie fu ñu noddee ci jàkk ji moom mu tëj dem julli ci bàyyi ñoom continuer di jaay benn bis la ko waaji ni gis nga sëñ Moustapha man damay ànd ak yow julli ji kat ndax yow fu julli jotee nga dem julli ji sa taabal ji rawul sa taabal ji gis ngeen mbokk yàlla moo koy barkeel loolu la ñuy bàyyi ci xel bu baax mu nekk benn erreur bu grave yow doomi jullit nga dem ci place liggéey ñu ne la fi kenn du fi julli kenn du fi julli looy def foofee demal uti wërsëgu yàlla feneen am déet mbokk place bu ñu dul julli julli dafa liggéey benn mbokk bu ñu wax Aliou Ba mu nga dëkkoon ci yëmbal rahimahullah daana ñëw fii ci suñu jàkk ji benn sotteelu Dakar yi la doon liggéey julli jot muy julli ji gaa yi na ko bu fi julli mu continuer julli ñuul dàq ko xaw ma ñiñ dàqoon ci pharmacie Guégon nu ñu mujje ñu noonu yéen ngeen di histoire boobu quelque mois ci gannaaw ay jeunes yoo xam ne julli ji te ñu dem julli ñu ne leen fii kenn di fi julli dàq leen bañ ko dàqee mu nekkoon employé bu simple ca hôtel boobee jaar na ci ay coono na am waaye mbokk pour jox la misaal rek bi muy dee ci Mercedes am la deeyee gaa yi kooku yàlla ubbi lu koy xéewala ma ah kay amul looy bàyyi ci yàlla tax lu dul yàlla wutal la lu ko gën kon borom bi subhanahu wa taala nee na loolu ñuy def mooy bàyyi seen itte yu màgg yooyee ñëw sama néeg bi bu ñuy dem ma leen di ubbil la nga xam ne nii moom mooy samay ngëneel loolee kon moom la borom bi subhanahu wa taala ne moom nag mooy wërsëgal ku ko neex bi xëy di xisaab ndax la mu ci jublu mooy lam lay may ci commerce àdduna déedéet mbokk loolu lu néew la lu ñàkk solo la àdduna waaye dëgg-dëgg pay ñooy dem jàkk mooy lan yenent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na fi yàlla di attee ay jaamam coono ya tar nit ñi fii ci seen ñaq yàlla dalay sempi ca mbooloo ma nga bokk ci juróom-ñaar yi yàlla di sempi wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid ñu ne la kaay toog ci keroog arsh ge ba yàlla attee jaamam nga doog a ànd ak yonent yi tabbi aljanna yàlla na yàlla defal ñu ko bal ci biir aljanna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na man gada ila al masjid aw raaxa aadda allahu lahu nuzulan fi ljanna kullama gada aw raaxa amul kenn kuy xëy wala kenn kuy gont benn waxtu nga jóge sa place wala sa kër dem ca jàkka ja lu dul am na la nga xam ne mooy ngan ak réception bu rëy ay palais yu lay xaar ca aljanna nombre de julli yi nga dem jàkka ji yëpp nekk na mille cent mille lu mën a doon julli gu nekk ak réception spéciale bañ lay jagleel di la ko terale ci biir aljanna moo tax borom bi ni wallahu yarzuqu man yasha bi ghayri xisaab mbokk lii mooy ab tënk bu ndaw ci lu aju ci ñi nga xam ne ñooy aju ci néegam yàlla ba léegi nag ñu ñëw ci beneen mbooloo beneen mbooloo bi mooy ñan jàngoon nañu sànq allahu nuuru samawati wal ard fan la nuur ba nekk ci julit xoolam leer la ay jëfam leer la ci placeu leer rek lañ koy fekk muy jàkk wala lu mel noonu amma yéeféer yéeféer yi suñu borom mu ni seen jëf dafa mel ni waa ji mar seen benn mbir ca kanam mu jàpp ne ndox la di waaxoog maram di waaxoog maram ba ñëw fekk du dara ca loolu mbokk mooy lan képp koo xam ne da nga yaakaar yàlla loolu say xalaat la rek waaye amul lenn loo xam ne mën na laa jëriñ ci du yàlla rawatina ñiy tuddee ñi gëm àllaaxira ca yahudiya ca nasaraan ya ca chrétien ya am na koo xam ne nii day taxaw masalan wallahi sunu rajo yi ni mu xewee ci réseaux sociaux yi xataa sunu maam yi xamul woon sunna sax ku leen yee woon digtal leen ko dañ faxas seen nopp daw benn waay buy taxawoon naan man àllaaxira soxlaa lu ma fa yàlla dara lu ma sëñ diw joxul soxluwuma ko mooy gaa yàgg leen dégg loola waay mi nga noonu du benn du ñaar borom boobu nag jàlla wa ala mu ne cay waay bis boo demee àllaaxira ba dajeg sëñ diw istabarra allazina tubi'u min allazina taba'u buñ demee ba sëñ diw génn ci yow sëñ yeneen ti génn ci yow ne la yaa ma doon bokkaaleeg yàlla nekk sa noon bi gën a garaaw bu keroogee da ngay xam ne ni ko toppoo woon dara loolu mooy ci wàllu diine am naa ci wàllu adduna yéeféer mbokk day jàpp ne kër kër tey su ma fexoon ba am léegi benn kër am na kër su ma amoon oto oto am naa nu may def ba am compte dix millions un milliard dem ba nekk milliardaire à dollar dàq adduna rek lu mu dem jàpp ne su ma yeggee ci lii baax na bu demee gën a mar am déet gaa yi adduna ndax kenn dana ci doyle di wax naa leen ma jox leen ki ma leen yàgg jox misaal muy ëffet bu wàññi ab yéeféer la woon ëffet bu wàññi waaye li tax ma koy joxe misaal daa boole woon nekk président de la république ba pare nekk milliardaire seen famille ay milliardaire lañu mu nekk président de la république dund lu yàgg ci pouvoir daana wax ne xam leen ne la vie est une course une course de fond pas de vitesse mu ne le résultat se trouve à l'arrivée non au départ et personne n'arrivera xam leen na adduna ji dee course la course la boo xam ne du fëx daw dañuy dañuy daw rek course de fond la mu ne ab course keroog fu ñu koy xamee mooy fa ñuy arrivé mu ne nag adduna kenn du arrivé te président le milliardaire la loolu it moo tax ne boo demoon tey jii da en Amérique da fa gis des juifs multimilliardaires yor ay yu kenn xamul waaye du ñu yendal du ñu fanaanal du ñu yendal du ñu fanaanal ba tey liñ bëggoon amagoon ko su ko defee ki noppalu may kan ki féete ak boroomam doyloo la ko yàlla wërsëgal al ghina ghina nafs am déet loolu la ñu yonent bi alayhi salaam wax kon yéefir mi ngi noonu du dallu du noppalu abadan borom bi nag wala mu ne nag su ma la mënee waxit seen melokaan ba tey mooy ko ko zulumaat yonent bi alayhi salaatu wasalaam wala boog suñu borom jalla wa ala mi ngi wax misaal benn waay bu nekk ci biir géej ci profondeur tey jii bu ñu demee ba plongeur yi xew dem nañ ba jàpp ne suñ demee ba à peine ay 500 mètres foofu lëndëm total moo fa nekk lëndëm total moo fa nekk yonent bi alayhi salatu wasalaam jamonoom nit mënuloon plongé sax ba passé la nga xam ne mooy ay vingt mètres ci biir géej mais suñu borom mi ngi ñuy won ne ki yegg foofu nga xam ne dafa nekk ci guddi mu nekk xiin loxo boppam bu ko defee nii du ko gis tey suñu borom won nañu doomu aadama yegg foofu mu ne loolu mooy melokaanu yéeféer ay lëndëm ci ko lëndëm yéeféer ab xolam daa lëndëm loo tax jëfam yépp lëndëm la ma nga ci pédophilie bi ma nga ci riba ba ma nga ci agression bi rey nit sans raison ay jëfam foo koy fekk place su lëndëm night club ya fa ñuy njaaloo fa ñuy naane sangara fa ñuy defe musiba duggam lëndëm la génnam lëndëm la ay waxam lëndëm la zulumaatun ba'duha fawqa ba'd borom boobu subhanahu wa taala nag ne ki yàlla subhanahu wa taala defalul ak leer ku mel noonu kenn mënu koo may leer te mbokk kon leer mi ngi jóge ci yàlla leer googu mooy leen wax nañ leen ko démb mooy alquran ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokkoon na ci ay ñaanam ci sujuutam bokkoon na ci ay ñaanam bu daan génn dem ca jàkka ja allahuma jal fi qalbi nuura wa fi lisani nuura fi sam'i nuura fi basri nuura wa an yamini nuura ila ila axiri ala kulli xaal da daan ñaan yàlla yàlla yàlla nag ma defal sama biir xol leer defal ma sama làmmiñ defal ma ko ci sama dégg defal ma ko ci sama gis ki yàlla may leer ci xolam xol boobu tawxiid rek lay mën a nangu day xàmmee shirk rëyët lépp génn ca nopp yi bu ci leer nekkee day xàmmee wax ju bon ak wax ju baax bët yi day xàmmee lu baax ak lu bon gannaaw bu mu ne yàlla sama kanam sama gannaaw sama deyjoor sama càmmooñ sama kaw sama suuf lépp yàlla nag ma ci defal leer ngiree mu nekk nuurun ala nuur mu safaanoo kay nekk zulumaatun ba'duha fawqa ba'd wa man lam yaj'al illahu lahu nuuran fama lahu min nuur ku yàlla may ñu leer du am leer yàlla na yàlla may ñu leer fi dunya wal axira mi ngi noonu Cheikh Ousmane
ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير قائمة
barakallahu fikum suñu boroom jalla wa ala mu ni alam tara ma yow xanaa doo gisoo ann allaha yusabbihu lahu ne yàlla day dana koy sabbaal man fi samawati wal ard ña nekk ci asamaan yi ak ñi nekk ci kaw suuf wa tayru safaat ak picc ya nga xam ni ñoo tàllal seen laafiya kullun qad alima salaatahu wa tasbiha képp ci ñoom xam na ak julleem ak na muy sabbale yàlla wallahu alimun bima yafaluun yàlla it xam na la nga xam ne moom la ñuy jëf walillahi mulku samawati wal ard ndax ñeel na yàlla nguurug asamaan ak suuf moomeelug asamaan ak suuf wa ila llahi almasir wa ila llahi almasir te ci yàlla la lépp di dellu alam tara xanaa gisoo ba tey anna allaha yusji sahaba na yàlla day mooy jëñ nuur ya niir ya summa yuallifu bayna gannaaw ba mu daal di koy boole ci seen diggante summa yajaluhu rukaama gannaaw ba mu def ko lu rankali ko fa taral wadaqa yaxruju min xilaali nga daal di gis taw ba di génn ci diggante niir yooyee wa yunazzilu min assamaa muy wàcce jële ci kaw asamaan min jibalin fiha min barat ci ay montagne nuage yoo xam ni dana ci nekk lii di ay glace fa yusibu bihi man yasha mu daal di koy laalale ku ko sob ci ay jaamam wa yasrifuhu am man yasha di ko wëlbati ci ku ko neex ci ay jaamam yakaadu sana barqihi xaw na la nga xam ne mooy leeraayu mel xam nga yazhabu bil absar di yóbbu bëti ña nga xam ne ñoo koy xool mi ngi noonu mbokk suñu boroom wax nañu ñaari catégorie ci ay jaamam jullit bi nga xam ni mi ngi ànd ak leerug alquran léppam leer la yéeféer bi nga xam ni mi ngi ci ay lëndam léppam lëndam la gannaaw ba nag mu daal di woo attention nit ñi ci alquran ji nga xam ne moom la bind te mbokk dafa am alquran ju yàlla wax moom la ñuy tiim ni am alquran ju ñu tiim yàlla di ñu ci jàngal dañuy won kattanam yërmandeem xikmaam mu ne xanaa gisoo ne yàlla mi ngi koy sabbal lépp lu nekk ci kaw asamaan ak lépp lu nekk ci kaw suuf moo ko suñu borom mu ne wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum biddiw yi ñu ngi sabbal dee scientifique yi wax nañ dëgg am na ay son yoo xamee ne ni katt nañ ko ci biddiw yi ñu ne comme ni xolu doomu aadama di tëgg lay tëggee tëf tëf tëf mi ngi noonu lépp ngi sabbaal xatta tey la nga xamee ne nii mooy li gën a tuuti ci daggati weñ yi nga for ci kii buñ ko dugalee ci la nga xam ne ni laboratoire yi dañ cay gis ay électron ay neutron yoo xam ne ñi ngi nekk di wër ni nga ci lépp jóge gauche jëm droite comme ni ñuy wëre kaabe gi borom bi nag nee na moo xam yéen xamu leen walakin la tafqahuna tasbihahum borom boobu subhanahu wa taala mu ne xoolil picc yi picc yi ngi gis ñuy naaw tàllal seen laaf yi am na feñeen mu ne saafatin wa yaqbid léegi la ñu tàllal seen naaf di plané plané nee na ñoom ñëpp ku nekk xam nga nuy julli la yàlla xam nga nuy sabbale yàlla mbokk picc yi ñi ngi julli di sabbal di nekk ci kaw asamaan lu dul nit ak jinne mi ngi julli di sabbal suñu borom mu ne ku nekk xam nga na ngay jullee waaw yow doomu aadama ndax xam nga nuy jullee loolu ngeen bàyyi ci xel bu baax kullun qad alima salatuhu wa tasbiha ndax ñoom yàlla da leen ni fixé picc bi ne Sénégal moom picc ba ne Amérique ak ba nekk Indonésie ñoo yem ñoom li leen yàlla binde rek te la ñu nekk amuñu xam-xam buñ ca yokk gaynde yi noonu la am ma yow doomu aadama suñu borom yàlla nee na axrajakum min butuni ummahatikum la taalamuuna shay'a yow xamoo dara fokk nag say way jur ak sa góorgóorlu ñoo lay tax a xam looloo tax mbokk jullit wareef la ci moom la nga war a gën a xam ci kaw suuf du jàng ba am ab baccalauréat wala doctorat ba am permis de conduire wala nekk lu mën a doon mooy nga fexe xam naka ngay julli farate bi gën a war ci yow mooy xam nuy julli comme na nga xam ne noonu lañ koy jàngee ci téere bi sunu maam yi daan jëkk a jàng ci Sénégal mooy maarifata farda ay nihi julli goon nuñ koy nuñ koy xamee yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne sallu kama ra'aytumuni usalli julli leen ni ngeen ma gis samay julli wallahi mbokk jullit tey buñ jëloon jullig yonent bi teg ko nii jël la ëpp ci julliti tey ñu jël seen julli comparé ak jullig yonent bi dana toll ne penku comme sow waaye mbokk ñu bàyyi xel bu baax bum ñu yóbbaale li ñuy gis nañu fexee respecté suñuy julli mooy li gën a mag li ñuy yaakaar ëllëg yowmal qiyaama ci ki ka neenal diinam léppay neen kullun qad alima salatuhu wa tasbiha suñu borom yàlla nag mu ne dara rëccu ma ca la nga xam ne ñoom it ñi ngi koy def mbokk sa borom yàlla mooy ki nga xam ni dara du ko itteel ci dara sànq bi ñuy julli ñu ñëpp ñu ngi jël suñu jee teg ci suuf ñun ñëpp ñu ngi sabbaal am nga yaqin ci ne sama sabal gi yàlla nga koy dégg ñu nekk Amérique Chine fu mu nekk ku nekk la ngay wax di ko ñaan am nga yaqin ne yàlla nga koy dégg ca dégg gi nga koy dégg du ko yàqal dégg keneen maykat yi dañuy netti li nee na benn milliardaire dafa am ay ay batoom yu kale ci port beeg yépp mu bàyyi ba jàkka ja kenn nekku fa mu ne xaaral ma dem ca jàkka ja wéete sama borom ñaan ko ngir mu décaleel ma sama problème yi nee na fi mu ubbee jàkka ji toog di ñaan benn caamin dugg ay yàlla dépense mu yóbbu kër ga de omo ko yàlla dimbal mu ci dépense mu ne kii daal dafa muy perturbé ne bu xëyeet këyit bu for jox ko na ko sëñ bi demal waa ji moom jóg ne alhamdulilah mu ne sax ñaar logg na moom yaa ngi dégg ndax foog ne ne moom comme waa ji da koy perturbé kee moom ñaanam nangu na loolu mbokk benn caricature rek bu ñuy wax waaye ala kulli xaal yow julit li nga gëm suñu borom nee na laa yazubu anhu misqala zarratin fi l ardi wala fi sama baleen yi nekk ci des milliers de mètres de profondeur xorondoom yi nekk ci biir montagne ya picc yi ci kaw garab ya malaaka yi ci kaw nekk kaw asamaan milliards de milliards de biddiw amul ku nekk kudul yaa ngi sabbal sa boroom ca amul kenn koo xam ni sa julli wala sa sabbal dana itteel yàlla ci mu bañ a dégg julli keneen wala sabbaalu keneen kullun qad alima salatuhu wa tasbiha borom bi it subhanahu wa taala ni yàlla it moo gën a xam ci lépp loo xam ne ñu ngi koy jëf ay du yàlla li mu xam ci ñun rek mooy suñu jullik suñu sabbal bal lépp loo xam ne yaa ngi koy def gannaaw jullik sabbal xamal ne yàlla xam na ko te loolu it la jullit war a bàyyi xel taxaw naa ci kanamu yàlla yàlla ngi muy gis muy julli waaye ca marché ba naka noonu de ci biir néeg ba naka noonu de fépp foo mën a nekk wallahu alimun bi maa yafaaluun borom bi nag tëjewaat ni xam leen ne yàlla moo moom ngóor ak asamaan ak suuf jibril ci ay jaamam la bokk yonent yi képp koo mën a xam jaamu bi yàlla la yàlla dong muy buur bi moom mboolem nekk asamaan ak suuf te yéen ñëpp ci yàlla ngeen di dellu li xew Sénégal nag mooy waaji bu dee ñu ne yàlla na ko suñ cam teeru gars yi déggu leen dégg loolu waay yàlla na ko suñ ta teem yàlla nañ ko teeroo ca barzaqu suñ sow loolu la gars yi di wax de mi ngi noonu yàlla nañ ko teeroo barzaqu suñ sow loolee mbokk da ngay gis ne muy suñuy lépp yi ñuy lépp jàngal ko mbooloo mi débranché seeni xol ci yàlla wékki ko ci la nga xam ne nii ci keneen ku dul yàlla la loolu mbokk ñu bàyyi ci xel bu baax képp ku dee ci yàlla nga jëm yàlla moo lay teeroo ki malaakaam yàlla moo lay enquête ak i malaakaam ci biir bàmmeel yàlla moo lay teral wala toroxal la moom ak i malaakaam ci biir bàmmeel wa ilallahi almasir borom bi bàyyi loolu daañu ne xanaa gisoona sa borom yàlla moom mooy jëñ niir yi sahaab bokk suñu borom ci kattanam la nga xamee ni nii moom mooy liy jóge kaw suuf ci am ay vapeur yu jóge ci géej moo koy jël yëkkati ko mu dem ci kaw mu dajale ko def koy niir nga koy gis muy dajaloo di dajaloo dajaloo ba nekk xiin aw xiin borom bi subhanahu wa taala daa di koy jeñ gannaaw ba taw ba di wàcc di jóge ci ay montagne glace te mbokk xam leen ne lu la gën a féete kaw moo la gën a sedd ba am na ay gox yu bari ci àdduna bi ay taw dafay ñëw ay buulu glace mooy dal seen kaw di toj li nga xam ne li nga xam ne mooy oto yeeg yépp sunu maam yi amoon nañ fi benn at bu ñu tuddee atum ëgg ba xam naa dana jege ay téeméeri at atum ëgg ba te moo di ne ni ay glace la doon taw seen kaw loolee suñu borom yàlla moo ko wax min jibalin fiha min barad te tey it buñ la ko wonee da ngay gis effectivement comme ay montagne lay doon borom bi nee na nag maa koy laalale ku ma neex di ko wëlbati ku ma neex imma taw bay jëriñ wala glace googee di lor fu nekk yàlla ko yóbbu fu ko neex léeg-léeg ay nit bay ba yaakaar mbay ma yàlla wat ci ëgg boobu mu yàqal leen lépp suñu borom it léeg-léeg mu indi ab tawam jox ay nit seen dara du manc sax na ci saxihu muslim benn yonent bi alayhi salaam di nettali nee na ci gaa yi leen jiitu woon benn waaye day dox ci àll bi bu mujj mu ngi taw xiin am benn xiin mu nekk ci kaw mu dégg mu naan ko tool diw mi ngi nii sottil fii nee na fi mu taxaw mu gis xiin bi ñëw ci tool bi di arrosé di arrosé di arrosé lu yàgg ba tooy bi tool bi tooy xib tool yi ko wër yépp benn ndox dalu fa waa ji dafa nekkoon ci tukki mu daa ji dem ci dëkk bi waaw fii ku fi bilal caam bilal caam bañ na ko bilal caam mi ngi nii waaw yow yaa moom tool bi féete fële mu ne ko waaw man maa ko sama tool la de mu ne ko waaw yow tool bi nooy jëfandikoo ak moom mu ne ah yàlla day may na ma tawféex lu ma mës a góobe ci tool bi danaa ko def ñetti partie benn partie ba dama koy jël saraxe ko benn partie ba maag sama njaboot ñu dunde ko beneen partie ba ma def ko aw jiw delloo ko ci tool bi mu ne ko nag day maa ngi lay seedeel ni maa dégg ci kaw nuage yi ñu naan rooseel tool diw a ngi nii gis ngeen loolu it mbokk day woñe ni bokk na nawet di barkeel mooy waa tool ya di génne aqu miskin yi amul benn dëkk boo xam ni dañuy yàlla da leen di may nawet te duñ jox aqu miskin yi lu dul yàlla dana leen nattoo ay maral duñu tawlu wala buñ tawloo dara lu baax moo tax borom bi ni moo koy daal ko neex yasrifuhu amman yasha mbokk ndox moomi mi ngi ànd ak lu ñuy tuddee ay ay ay melax melax yooyu ay foudre la benn courant boo xam ne muy jóge ci kaw ba li muy rey ci àdduna bi kenn xamul nu mu toll kenn xamul ñaata lay rey ci kaw suuf loolu nag nga xam ne mooy melax bi mu àndal suñu borom mu ne xaw naa yóbbu la nga xam ne mooy bët yi doonte ne yàlla bindul lenn ci azar mi ngi noonu yàgg na yàgg mooy gis benn xadis yonente bi alayhi salaam di ñaan xadis di naan yàlla ñu yàlla may taw boo xam ne day bëri ay dënu bëri ay melax da ngay laaj mais li tax lii ba gannaaw ba nag la ñuy doog a gis ne ndekete yoote scientifiquement melax yooyu naan ray dafa am benn genre engrais bu muy def ci kaw suuf ba nawet bu la ëpp ay melax nawet boobee mooy la nga xam ne moo lay gën a baax la nga xam ne mooy ak mbay yàlla bindul dara dara dara ci neen mi ngi noonu dama fàttali suñu mbokku Serigne Ndiaye hafizahullah nee na suñ ma sa nekk ci àllu lingeer boobee dañoo toog mooy nawet bi mi ngi normal ñax mi bëri waaye nag yépp loof vétérinaire yi ñëw di def ay étude def étude benn màgga tumpal ne eh yéen xamu leen dara mu ne nag yi li tax ñu loof mooy dafa layul ren waaw lay bi moo tax nag yi duuf nay lay amul lu nag yi di duufe gaa yi suñ xale moom lu ab lay moom da nga daan amul benn njëriñ am déet lan njëriñ ab lay luy njëriñam waaye déedéet yàlla bindul dara ci neen su ko defee kon mbokk lu mel nii la ñu suñu borom yàlla di wax ci lenn ci ay xéewalam yu ñu wër gannaaw bam ñu waxee ñun sunu warugar nan la ñu war a taxawee ci kaw suuf di ñaan yàlla subhanahu wa taala moom mi ñi moom ci dëpp li ñu may ñu tawféex muy xéewal gu rëy goo war di sante sa borom yàlla may la nga bokk ci ñi nga xam ne dañuy dem jàkka di toog ci jàkka loolu dañ cee war di sant yàlla yàlla na yàlla sàmmal ko ko ba ñu dajeeg moom pay yam ci diggaati yéen mu jox ñu ko lu romb suñu njort mbokk mi ngi noonu wallahu aalam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain kon incha allah tey daañ mën a amaat cinq minutes ci li nga xam ne dafa aju ci laaj yi su dee am na incha allah ala kulli xaal ngeneelu iktikaaf la wax day waaw kooku yaakaar naa moom suñu mbokk bi Mansour si sax waa barki démb rek mi ngi fi def ay fàttali ala kulli xaal iktikaaf mooy sunna yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam ah doomu aadama boo xam ne yàlla may may na ko ko mu koy def loolee ci bunt yi gën a rëy ci la bokk doomu aadama yi da ngay gis ñu bàyyi seen réew joxe ay millions dem makka nekk fa di fa def ay itikaaf ak umra lu mel noonu it gëñeel boobu moo nekk ci loo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam musu koo ñàkk a def ci dundam loolee ku ko yàlla yombalal nga def ko nekkul loo xam ne farata la waaye xam ne def bi nga koy def ci yaakaar gi gën a yaakaar la ci kanamu suñu borom jalla wa ala mi ngi noonu euh, loo loo loo ca man rek nga def ko ca soo mënee féete ca jàkka ja def itikaaf total moo gën soo ko mënul it temps boo mën a jagleel jàkka ja nga def ko fa tisbaar takusaan suba gi heure boo amee jot nga xam ni euh, mag ñu jëkk ña dañ daan wax naan dañ daan daw ca jàkka ja ngir sàmm suñu koor dañ daan daw ca jàkka ja ngir sàmm suñu koor kon jàkka moom mooy toogaayu jullit naka jekk waaye bu koor jotee nag moom waxi nappi mi ngi noonu yal na yàlla boole ñu nangul ala kulli xaal kon bokk kon subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk